couvre-feu bi euh, mu ngi nekk benn affaire boo xamante ne je pense que euh, bu état d'urgence amee la ñu koy euh, décréter donc boo ko defee ñu mun a xam situation fu réew mi toll ak ci li nga xamante ne moom moo ko waral pour mu am. donc euh, ñu dégg nag ni président mu def na déclaration bu am solo moo xamante ne suivre nañ ko mu wax ci aussi wax yu am solo aussi euh, ñu te topp débat yi te gis nañ aussi fi nga xamante ne moom moo waral couvre bi am mooy euh, li nga xamante ne moom mooy taxawaay bi donc ci affaire yu am solo quoi muy taxawaayu état bi di taxawaayu aussi médecin yi ak feebar fi mu toll je pense que loolu moo waral ñu jël couvre-feu bi je pense. décision bu responsable la. parce que je pense que war nañu euh, génne li nga xamante ne moom mooy euh, état bu euh, taxaw di ŋàññ wala taxaw opposé wu. je pense que même boo farulu état bu situation tollee fii parce que boo xoolee peste bi ci jamonoom je pense que mu ngi rey vingt cinq mille sénégalais. ci jamono boobu en 1918 je pense 19 donc tey ñu ñëw coronavirus am ñu ne mbas mi la ñu ne non état bi waxuñu dëgg wala lii ak lii ak lii je pense que jeunes yi conscient jeunes yi conscient waruñu xool foofu dañu war a xool feebar bi lan la jur ak fu mu jógee lu mu am xam aussi affaire bi parce que ay médecins yu qualifiés jàng ba am seen diplôme nekk ay professionnels toog wax ni feebar fii la toll ak lii ak lii ak lii moo ci am bu ñu demee ba taxaw ba jooy toog sur télé jooy daal lii am na te mu ngi rey. kon ñun war nañ mën a taxawaat xoolaat suñu bopp suñu comportement te je pense que lii nii nekkul loo xam lu ma bett la man man bokk personnellement waaw. parce que y a une négligence de la part de la population ñoom ñoo takkul masque yi ba def na li li am na am a lancer un message aux jeunes vraiment mooy nañu conscient mooy jeunesse conscient dafa toll ci jamono boo xam foofu lañ toll fu mu toll nii feebar bi am na nañu takk masque yi nañu respecté suñu ay kilifa parce que boo xool feebar ñi muy yóbbu ñëpp mooy kilifa yi kon yow mi nga xam yaay ne ci mbedd dem na man gëwuma ko dem toog naan ataaya am feebar bi dem yóbbu ko wàllu ko sa maam mu feebar lenn dal ko ci itam yow jëlee sa responsabilité xam ne yaa ko rey il faut que aussi ñu bàyyi xel ci loolu aussi ñu àndandoo booloo jàppale état bi ku ci nekk responsabilité rek problème responsabilité la mooy nañ jël suñu responsable booy génn defal nii sa masque na nga takk boo dem ci marché nga tax boo ñuy ñu ne arrêté nuyoo bul nuyoo nga jël sa responsabilité en tant que jeune nga xam ne yow ëllëg mën nga doon président parce que Macky Sall fi mu ne mën nga fa nekk tey ñuy opposé wu sax man opposition dama sañ su ma sañ dañuy booloo ba feebar bi jàll ñu doog a xeexaat bu ñuy xeex jëm a xool lan solution la ñu trouvé pour mën a jël mais bu ñëpp bëgg a taxawee ëpp ne damay opposé ne non feebar bi toll na fii non gëw ma ko état bi dañuy nax nit ñi boobaa kon population bi ñu gëm kenn te ñun ñu war a gëm mooy ñoom ñu jiite te ñoom ñu jiite ak opposition bu ñëwee ba dem ci biir di xaasante ngaañante ñun duñ gëm feebar bi te feebar bi réellement dafa am dafa am kon nañu takk masque yi surtout jeunesse bi ñoom laay waxal nañu takk masque yi ñu jéem a góorlu jéem a jàppale suñu bopp jéem a xool nu ñu respecté mesure barrières yi toog suñu biir ay kër aussi xam bu baax a baax li nga xam moom la ñu war a def jël suñu ay responsabilité bu ko defee feebar mën fay jógee ba ñu nekkaat suñu ay activité am na solo lu ba te décision bu wóor la président jël man d' accord naa ci baax. man maa ngi tudd Baye Mamadou Kane euh, maa ngi dëgg carrière précisément euh, wetu Best FM couvre-feu moom leen laa xalaat maanaam mooy genre su fekkoon pour wàllum feebar rek la pour mu bëgg fee jugee wala bëgg a wàññeeku bu dëgg yàlla dañ ko doon si bëccëg wala suba su fekkee li ñuy woote dëgg la parce que mënoo mësoo gis yow feebar boo xam ne mën naa wàll. plus de cent personnes si guddi gi ñëpp guddi ñëpp a ngi seen kër parce de vingt une heure yi vingt heures ñu am na benn euh, chance benn benn sens négatif bu mu bu mu impacté si euh, ñun ñi nga xam ne ñun ñi ngi jàngee ba jasab di wàcc dix huit ñu ñun bu ñu ñibbisi loolu maanaam vingt une heures sax mën nañoo fekk si yoon bi la bu ñu fekkee si ñoom lan lay wax policier dañoo jàngoon dañoo mënu ñoo comprendre pas conscients ñoom ñoom lu leen intéressé rek la ñuy def ñoom imaginer ñu wàcc 18 heures dem wala 19 heures ñun 21 euh, heures ñu si yoon bu la waxee dañoo jàngoon ñu gëm fa lay nekk di jël ñu dugal ñu oto yi wala ñuy dóor affaire yooyu noonu duñ comprendre su fekkoon fekkoon daal ñoom couvre-feu daal moo am dañ ko war a wax euh, dañ ko fi indi pour ñu wàññi fee pour ñu wàllu feebar bi maanaam waruñ ko woon def guddi quoi genre loolu ba pare tamit day yow loo xam ne yow da impacté si économie économie économie euh, économie dëkk pare nga bëgg man daal jaaxal na ma de pare jékki-jékki rek ñëw indi ko nii subitement amul benn prévention non non mais xam nga mais xam nga bu njëkk kaay moo gën a kaay moo gën a métti mooy cour mooy bu njëkk ba da boobu dañoo joxoon benn benn genre benn durée bi ni biñ ci tolloo dinañ def couvre-feu mais bi président dafay ñëw rek joxe ko subitement gars yi amuñu leen loo xam ne maanaam mooy loolu dañ léegi ñoo xam ne ñëw li guddi gi lañ doon liggéey nag moom lañ yoree seen njaboot moom lañ yoree seen dëgg léegi ñoom qu'est-ce qu'ils vont lan lañuy def lan tamit nañ waxante dëgg Badou Sidibé couvre-feu sax wax dëgg yàlla nag nag dafa doon affaire boo xam ne a jaaxal de man xaw ma lan la mën def ci Covid bi ma nu mën a def ba wàññi Covid bi xaw ma nu demee noonu que nit ñi journée bi la ñuy dox instant yi année bi ñëw na ñi liggéey ñi ngi liggéey gisuma leen loo xam ne boo ko defee ci ay couvre-feu dina tax affaire bi jàngoro bi wàññeeku quoi kon bu dee jàngoro bi lañ bëgg mu wàññeeku yaakaar naa mën nañ ko lonk si yeneen affaire de yoo xam ne comme par exemple nii gars yi ni ñuy toogee nii dox nii ngay dox affaire yi mën na gën a sévère sax mais pas couvre-feu quoi couvre moom gisuma leen loo xam ne war na mën a tax feebar wàññeeku si couvre-feu de. non non non non gisuma couvre-feu benn njëriñ moom ñu ñu def boo dóor day dal booy def nga def confinement ñu dugg si biir kër yi comprendre nga affaire yi wàññeeku boobaa li nga mën a def nga def ko mais nga ñëw def couvre-feu lu mu man man affaire bi jaaxal na man bëgg naa ñu expliquer ñu